asalaamaaleykum mbokki internetu Dakar Live TV nuyu naa leen bu baax a baax ziyaar leen mbégte la comme saa su nekk rek ni ñu koy defee jàkkaarloog yéen euh, alors tey nag ñu daal di ñëw daal di seet si nag ki nga xam ne moom moo di Kaliphone ne nag waxtaan yu nga xam ne moom lañ fas yéene sekk dina am solo ndax gis ngeen li nga xamante ni moom moo fi jot a xew ci diggante procès bi nga xam ne moo waroon a dox ci diggante euh, Ousmane Sonko Adji Sarr coow li nga xamante ni jub na ci ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan dañu koy bàyyi rek mu nuyoo euh, ko defee ñu daal di door waxtaan wi Kali ngi lay nuyu waaw sister maa ngi lay fay di nuyu waa Dakar live ak seenee ay internet di nuyu sénégalais fa fu ñu mën a bàyyi xel jamono ji ñi nekk Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew. donc di leen di jaajëfal di leen nekk bisimilah dal leen ak jàmm. si kër Kalifan d'accord am na solo kontaan bu baax a baax ci ci dalal bi fi ñu dooree waxtaan bi rek Kali euh, xam naa ne du yi ndax dañuy euh, wax ci li nga xamante ni moom moo di le 16 mars bi nga xam ne ci la ñu génn euh, procès bi doon dox ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko coow li nga xamante ni moom moo ci jot am mais fi ñu koy dooree mooy usman Sonko ñëwul ci ci Ndakaaru Ziguinchor la toog noo jàngatee tey toog bi nga xam ne toog na ko Ziguinchor lànk ne di wuy si justice. waaw ginnaaw ba mu leen nuyoo. may kontaan si question bi ma laaj. yaakaar naa ni question bi moom sénégalais boo ko mënti laaj rek lu mu lay wax mooy Ousmane Sonko wane ne que wane ne ne na que tapette la. waaw wane ne que tapette la donc euh, sénégalais ñu ngi doon xaar Ousmane Sonko bi nga xamante ni newoon na ki dafa bëgg procès diggante ak aji Sarr. vidéo yi buñ ñu demee si ginnaaw moo ko doon wax euh, bu ko kenn faat bu karawam manqué bu ko kenn génne réew mi. moom Ousmane Sonko yàqamti na procès pour mën a wax sénégalais yi que lii yëpp ay kàcc la pour mën a wax sénégalais yi que lii yëpp complot la pour mën a wax sénégalais yi que dossier bi dafa vide taxoon mu jël treize avocats ah boobu ba léegi Ousmane Sonko bi ñu doon xaar mu ne procès la bëgg yaa xayti ñu ne ko wàcc daanoo si gën a gaaw andil nañ la procès ñu gis une semaine avant procès am Ousmane Sonko def déclaration ne. dootul wuy justice loolu mooy kon mu ngi waajaloon lii bañ a wuy si donc nag yaakaar naa ne lii bu fi yemoon sax neex na parce que yow ab jigéen ñëw tuumaal la ak tuuma nu mu méttee nga war a ñëw setal sa der ragg sa der ñu may la opportunité boobu te yaa doon toog naan complot la président moo la comploté ministre de l'intérieur moo la comploté procureur moo la comploté mais sénégalais yi bëgg ñu xam complot bi nu mu demee complot di si ay wax kese da ngay andi preuve ñu xam ñu dégg comme ñoom yàgg nañ dem bureau doyen des juges dem nañ fa demati fa sénégalais bi nekk fii ba si diaspora bi xamul luñ fa doon wax léegi opportunité may na leen audience publique devant tous les sénégalais ay avocat am teew aji saar teew ak ay avocat am ak public bi kan moo ko nar a juge jour boobu du président Macky Sall du ministre de l'intérieur c'est des juges yu porté serment yu jàng xam droit mm-hmm. mais na Ousmane Sonko andi ay preuves yu moo xoon ne détenir na ko que lii la aji saarit andi preuve yi wane ne li mu doon tuumaal Ousmane Sonko am na bu ko defee sénégalais yi daal di ubbi seeni ay gët ak ay seeni nopp mën a xam fu dëgg féete loolu yaa xayti ku la ko woo kay waroon tey ngay dem di gàddaay di daw cité kër góor gi bii nga dëkk doyatu la nga daw dem ba je sais pas Casamance ba léegi mënuñu ko tax sax teg bët ñu gis benn Mimi Touré déplacé wu jël lu mel ni avion dem mënu ko gis Déthié Fall doomu ndeyam jël avion dem mënu ko gis ah Malick Gakou asi ah, yaayam Aïda Mbodj Aïda Mbodj nee na yaayam la mhm. mais est-ce que yéen journalistes yi gis ngeen ba Aïda Mbodj demee Casamance photo wu nag Ousmane Sonko mais est-ce que gisante wuñu ci loo xamante ni photo amu ci même bu gisante woon moom bañ ko tàllalee micro munoon na ne gis naa Ousmane Sonko mu ngi si jàmm mu ngi ànd ak xelam mu ngi ànd ak dalam mais est-ce que du stratégie bu nga xam ne teg nañu ko mais stratégie moo fi amut Ousmane Sonko bu dee leer na ko luñ koy toppee defu ko mais looy daw di nëbbatu man ba nga ñëwee léegi laajte kan mooy Kaliphone ana këram dañ la ne mu ngi fi dawuma parce que xam naa ni def ma dara maa ngi sama kër fii laay yendu fii laay yeewoo lu may daw bu ma leeroon ne nag am na lu ma def boo fi ñëw dama fekk mais Aïda Mbodj ñëpp xam nañ ne day ne yaay Ousmane Sonko la mais bu Ousmane Sonko dawee ñëpp ba Aïda Mbodj ñëw mu mën ko recevoir gars yi wane image ne Aïda Mbodj ak Ousmane Sonko macha allah. waxtaan nañu ñaanal euh, mais yéen journaliste yi tàllal ngeen ko micro. Aïda Mbodj est-ce que nee na leen Ousmane Sonko va très bien waxu ko. Mhm. Mimi de ba ngeen ko tàllalee micro moom jaar na si digg bi nee na moom gisul Ousmane Sonko. Mhm. parce que nit ñee bëri. mais loolu c'est faux parce que lu toll ni Mimi Touré mënul déplacé wu de Dakar ba Ziguinchor jël avion ak perte temps mhm. mu dem ba bëgg a gis Ousmane Sonko. ñu koy bañ a recevoir. mais est-ce que déggante wuñu téléphone itam. mu ñu nga bu ñu bu ñu déggante woon téléphone. du déplacé wu dem. boo jéemee contacté na ko téléphone munu ko jot mu ne xaaral mu xooli ndax dina ko gis. mais balaa loolu sax ay militant Ousmane Sonko dégg naa ñëw nañu këram. toog foofu di siège mais yaa xayti na taxaw ci balcon bi ne leen les jeunes merci pour la soutien. mais gisu leen ko. et pourtant cité kër góor gi fii dañ doon barricade buntu këram. nga gis Ousmane Sonko di ñëw di sol ay blouson di tël di foo di kii si buntu këramam di défoulewu devant tout le monde parce que boobu procès ñëwagul mm-hmm. toog nañu fii barricade buntu këram mu taal otom dugal si doomam mu avancé ne day dem ñu ne ko doo mën a dem mu ñibbiwaat cité kër góor gi mais ak Casamance bi na jël otom jéem a génn sax ba gendarme ne ko du dem ñu gis ko bo mm. lu muy daw lu muy nëbbatu te moom moo ne woon procès la soxla mm-hmm. moo ne woon dossier bi dafa vide ay avocat am sax pour te dire vrai nee nañu amuñu sax instant bi contact ak Ousmane Sonko dégg nga ko démb. mais est ce que nekkul stratégie bu nga xamante ni moom lañu teg. quand même pour jouer ci xelu mais stratégie moo fi amul si ban xelu nit lañ mën a joue ban xelu nit lañ mën a jouer. peut ñi nga xamante ne lañu wax ni moom lañ ñoom dañ ko bëgg a teg loxo. mais teg loxo teg loxo bu si naree am. Mhm. moo ko andi parce que buñ la joxoon convocation nga wuyu ji teg loxo du si am. mais est jotul tamit ñu xool li waral Ousmane Sonko euh, gàddaay jógee euh, Dakar euh, dem fi nga xam ne moom moo di Ziguinchor parce que gis nañu ay woote yi nga xamante ni doon na dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang li nga xamante ni dañ ko doon def di toj otoom waaye tamit di ko dóor ay grenade ñenn ci ay ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor ñu leen di dóor ñenn ñi wax ni sax ay bal la ñu seen tànk yeeg loolu tamit bokkul ci bi nga xam ne moom la bëgg a teg ba tax mu dem Ziguinchor est-ce que waruñu xoolaat li nga xam ne moom moo jot a xew est-ce que gis ngeen ci image yi police jékki-jékki rek ñëw dóor demeewul noonu Ousmane Sonko ba muy si te kër góor gi di dem procès ak Mame Mbaye Niang mhm. gendarmerie moo ko dar yore sécurité yóbbu ko ba biir tribunal première fois bañ demee lan la ñuy wax dañ ko renvoyé mhm. gendarmerie di ko jalaat di ñibbi fu mu jaaroon ñu dafa jaar mu ne moom jaaru fa mooy suufu tunnel Soumbédioune bi pourtant ba muy dem fa la jaar Mm-hmm. mais au retour mu ne daf bëgg jaar Medina université pour lan. mais quand ban droit la am di ko utal yoon te ñi nga xamante ni lay sekkal. ñoom dañuy aw si yoon bu nga. xamante ni kenn du leen tere. dafa ni yow tey boo doon dem. Mm-hmm. nit ku ne libre na jaar fu ko neex. mais boo bëggee dem naan fuul na jóg ànd ak yow. Mm-hmm. mais tey science salle bu ñu jaaroon côté université. mais étudiants yi dañuy jàng mu ngi leen di déranger. science salle euh, côté université a science al yoon boobu taxi yi ñu ngi liggéey njaga njaay tataay ñoo ñëpp da leen di encombré mais tamit ñun état la ñu yor bu état xamee ne kii bu jaaree fii pendant quatre heures de temps kenn mënul dem kenn mënul ñëw dinañ ko jaaral yoon bu gën a gaaw mooy corniche c'est c'est vide ba pare escorté ko pour bu ko kenn def lu ñaaw mais ba ñu yóbbu nañ ko escorté ko ba biir tribunal dem nga ñu ne dossier renvoyé dugaatal sa oto nga ñibbi sa kër toog booy def sa point de presse def mais dafa ñëw ba si suñu jun bi génne bopp bi woo nit ñi ne ñëw leen. moom bul fàtte ne homme public bu nekkee homme public. Mhm. homme public fii tamit nee naa la dëkk de droit la nekk. Mhm. nekk homme public permettre la nga jékki-jékki di def ay marche yoo xam ne amoo autorisation. parce que dëkk bi tamit pour nga jékki-jékki baax sa kër sax danga war am autorisation. Mhm. booy def marche ak lu mu mënti doon da nga da war a dem ne préfet damay marche ba su sàngam rue bi laa soxla rue bi. ñu prévoir teg ay policiers ñu mën a détourner oto yi. Mhm. mais Ousmane Sonko nekkul président de la République. mais jamono jooju bul fàtte ni procès public bi c'était au tribunal. Mhm. mënoon na jox ay nitam rendez-vous au tribunal. mais warul ne nit ñi kaay leen accompagnement tribunal. parce que embouteillage lay andi. Mhm. siyaansal nga andi junni nit ñu taxaw si kaw télé bi. benn femme bëgg accoucher nekk si taxi. mën na fa jaar perte bakkanam scienceal accident am sapeur pompier bëgg jëli mhm. secours mënul andi jafe-jafe kon moom nee na bëgg na nekk président de la république nay xool luy yoon woo nañ la tribunal taalal sa oto nga dem facilement. mais est-ce que mën nañ ko dindi ci histoire Sénégal parce que président Macky Sall bu fàtte ni 2012 bi ñu euh, xamante ni peut-être ñoo ko bëgg ngir euh, woote bi nga xamante ni woowoon nañ ko. président Macky Sall fan a woo 2012. Ah, woo fii nga xam ne moom mooy di section de nga li nga xamante ni woote woon na ko. man man maa ngi maa a dégg <laughs> président Macky dañ ko woon attends man maa ngi doog dégg président Macky Sall dañ ko woon section de recherche parce que gisuma woon lu mu mm-hmm. defoon ban délit ba ñëw ko section de recherche loolu moom maa ngi koy doog a dégg tey président Macky Sall mosuñu ko justice Idrissa Seck mm-hmm. Idrissa Seck Idrissa mm-hmm. Seck bañ ko woowee point e la jóge woon nar jaar université ay lacrymogène lañ leen door ba mu saf sap da nga yaakaar ni dispersé foule tey la door depuis jamonoy Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade yàgg nañ disperser foule. mais est-ce li ma la ku jàdd yoon yoon dal sa kaw bul xool anam bu koy defee. yow il suffit nga jàdd yoon. bul xool luñ lay teg. yaa jàdd yoon rek. yoon yor na matukaay bu mu la bëgg teg da lay teg. boo jàddul yoon nag yoon du dal sa kaw man est-ce que tey police ñëw fii ma tëdd nii. Mhm. sama biir kër di ma door lakk ma jàddu ma yoon maa ngi sama kër. mais bu ma jékki-jékki woon sol sama tisa taxaw croisement Cambérène bële dinaan damay oto yi mhm. buñ ma bul xool luñ may teg mën nañ ma ngàdd yàpp mën nañ ma dóor lacrymogène mën nañ ma buub oto parce que maa jàdd yoon mm-hmm. bu nit tooñee nañu xool ki tooñ bu ñu xool ku fayu bu jalgatiwuloon dara du ko si fekk mm-hmm. woo nañ la taalal sa oto ak sa safar nga wuy c'est simple comme bonjour ñaata junni nit lañ fi woo ñu wuy tribunal yow journaliste nga bés bu ne yaa ngi dem tribunal délit yi gën a garaaw Ousmane Sonko mi def nit ñee koy def dafa am mbir bi mm-hmm. te ñooñ c'est des comme ne Ousmane Sonko nekkee sénégalais Ousmane Sonko encore bul fàtte benn carte d'identité la yor kan la gën ci réew mi lu mu doon. mais dafa am benn statut boo xamante ni. quel statut bi statut mais bëgg réew bëgg bëgg réew bëgg réew Sénégal dafa signifier dangaa ngaa gën menuisier bi. bëgg réew Sénégal taxul nga gën benn kalifan bëgg-bëggam la. est-ce que bëgg réew Sénégal sénégalais yi dénk nañ ko ko dénk guñ ko ko boo nekk jee un président de la république nag foo bëgg jaar da fay jaar. parce que loolu yoon moo président fu mu bëgg jaar ñu baare tali bi xaalal ko yoon escorté ko mhm. mais à part président de la république keneen ku bëgg jaar fenn da ngay wut autorisation ñu daal di lay gunge jox la autorisation même da ngay gis ay gàmmu ci ay koñ màggal da ngay wut pour nga mën a baale tali bi ainsi de dëkk yoon lañ nekk nekkuñu si dëkk anarchie tamit. d'accord résistance bi nga xamante ni ñenn ci ndawi Pastef yi ñu ngi koy woote noo ko jàngatee ak li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci Ziguinchor gis nañu ay ndaw yu nga xam ne euh, bàyyi nañu seen ay liggéey di fanaan buntu kër Ousmane sonk ne dañu koy protéger noo ko jàngatee. <laughs> waaw xam nga ku dépense war ku yor soxnaam. Mhm. yor doomam xam ne weer bu deewee da koy fayal njàng. doo bàyyi loolu yëpp bàyyi sa liggéey di dem naan da ngay tax kër Ousmane Sonko pour lan jamono jooju danga gis mbokk Ousmane Sonko si buntu kër ga ana jabar Ousmane Sonko gis nga ko mu génn ana doomu Ousmane Sonko daf ko yenn yóbbu Canada gis na mu ngi naan papam lañ na a jugé mu jël avion fay cinq cent euros wala cinq cent dollars ñibbisi defu ko kon lu tax man néew di doole bi li ma war mooy jaayi café Touba li ma war mooy góorgóorlu ji wut dépense nar a teral sama ndey sama baay te bientôt tabaski ngi ñëw defuma loolu may dem di lagar-lagari di fanaan buntu kër jàmbur koo xam ne yëgu la tinu la ñii di fanaan foofu Sonko xamu leen sax Sonko xamu leen lu leen Sonko defaral am na yoo xam ne boo xoolee ba ci biir ñàkk fayda la tey bien sûr parce que nit mën naa ko supporter si lan bëgg naa mu nekk président de la république ma xaar ba jour urne yi ma votel ko loolu laa sekk ak moom mais joxe ji sama baqan ndax moom jaralu ma ko ñu tëj ma si kaso bi ndax moom jaralu ma ko ñaata ndaw perte seen baqan est-ce que dégg nga doomu Sonko perte na sax dàllam man doomu Sonko dina ma gën nit ki kay sama bopp ma la gënal du bañ naa la bu ma ñëwee di la xeexal day fekk bu ma ñëwee dinaa fekk sa doom dinaa fekk sa jabar dinaa fekk say mbokk ma ñëw xeexal la mais ki ngay xeexal en personne doo ko gis wala boo ko gisee si oto lay toog am vingt garde corps saxaar du ko jege yow walaa kaana bii di góor góorgóorlu boo yeewoo doo ndékki yaay dem naan da nga koy garde ci xaru la rey sa bopp la temps bi ngay def di dem kër Ousmane Sonko pour garder ko defal temps boobu dem manee baru ji boo wàccee ngoon am sa benn 3000 andi sa njaboot nga am barke mais boo demee fanaan kër Ousmane Sonko ñu dóor la fa bal boo deewee lay wax ji yàlla sunu borom est-ce que da nga ne moon xeex yi pour dund bu seer déedéet da nga demoon xeex yi pour wutal sa waa kër dépense déedéet da nga demoon xeex yi pour diine gi jëm kanam déedéet da nga xeex yi parce que woo nañu benn waay na wuy ji yoon mu ne wuy jiwul yoon nga ne yaay garde corps ah, koy protéger parce que Ousmane Sonko la ñu jàpp que ni moom moo mën euh, <laughs> ko ci jaamu yàlla la bokk bokk na ci li xamante ni <laughs> ñoom dañu koy dañ koy faral di wéyee mooy li ma la wax dañoo réer ah dañoo réer nit ki protéger sa bopp protéger sa papa sa yaay sa doom protéger sa kër comme lu ma fi def barki démb nit bu naree ñëw dal sa kër nga protéger sa kër bu ñu la naree rey jixaat la parce que boo seetaan nit ñëw dal sa kër mais protéger koo xam ne bokk leen day bokk leen baay. Mm-hmm. mais leader la quand mais leader de quoi. leader bi lu mu la apporteel leader bi bu toogee politiquement lan la la mën a apporteel ñii di rey seen bopp si Ousmane Sonko Ousmane Sonko yaakaar nañ ne Ousmane Sonko bu toogee. Mm-hmm. saako ceeb lu muy jar vingt Sonko mën na ko andi 5000. mënu ko jàpp nañ ni Sonko mën na koo wàcce parce mais mais mais mais mais dama ne àdduna moo métti jamono ji sagam France la dundu seer. Mhm. Amérique dundu seer Italie seer. Sénégal day seer. dafa bëri jeunes yu amul liggéey nag. mais jeune bu amul liggéey à qui la faute état du joxe liggéey siste mhm. mais mën na créer ay entreprises mais yu mu créé mais ñii di liggéey nag da nga ko xeeb. Mhm. da nga bëgg wax Sénégal daal kenn liggéeyul dafa bëri tey lu nga xamante ni maanaam Barano daf ci bokk te moom nee na euh, bokk na ci li nga xamante ni daf koy xeex euh, képp ku nga xamante ni jàng ba am sa ay diplôme fi nga war a toog da nga fay toog par rapport ak Barano yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci réew mi. ok est-ce que du looloo tax tey jeunes jeunes yi di waxu waxu politicien dañuy ndaw rek gis nga man xale laa duma xale. Mm. Abdoulaye Wade fii la toog ne ana ko amul liggéey ñu yëkkati suñu loxo mu ne yëkkati leen loxo yi boobu Ablaye di yorul dërëm mënuloon sax lu muy campagne oto la doon dawal moog Idrissa Seck ñuy def ay marche parce que amuñu woon lu ñu luy woon ay chaise ak ay tente ak sonorisation yorul boobu mu ngi France après la ñëw oto la doon dem ñu def si gasoil ñu koy topp ñu ndaw ñi di yuuxu rek naan bu Ablaye Wade faloo mbégte day am bu Ablaye Wade faloo ñu tekki Ablaye Wade moo gën a jàng sonk ëpp ko xam-xam sëgg moom moo ñu mënoon toog ne ndaw ñi est-ce que am ngeen liggéey ñu ne ko déedéet <laughs> ñu ne ko déedéet mm-hmm. mu ne bu ma faloo wutal leen liggéey pourtant Abdou Diouf defuñu woon dara de mais waxu Ablaye da lañ dégg comme nu ko Sonko di defee nii ñu ñëw votel Ablaye Wade man bokk naa ci si votel Ablaye deux mille douze euh, deux mille l'an deux mille d'accord deux ans lañ ci teg ñu yaakaaroon ne ñun ndaw ñi dañuy am liggéey suñu Sénégal day neex boobu la Barça wala Barça commencé ndaw ñëpp gàddaay génn réew mi lu tax ndaw ñi génn réew mi te kii leen digoon ne bu ma toogee seen seen seen bamba maase kon naxeel am na parce que président lu tal ndaw ñëpp liggéey président munul def loo xamante ni yàlla sunu borom sax defu ko parce que yàlla mii mën a jox jaamam yëpp lépp tey yow yàlla mu ngi lay jox di ma xañ yàlla ñi mu jox ay immeuble yow mu jox la néegu baraak sëgam yàlla moo mënut a jox ñëpp wax ma la benn Ablaye Wade mhm. ba mu nee ndaw ñi wutal naa leen liggéey Barça wala Barsaq bi gis nga si la door on avait des milliers de morts deetawaay Abdou euh, président Macky Sall ñëw ñu jële fi Ablaye Wade ndaw ñëpp am yaakaar si moom te dañuy am liggéey moom a personne ba mu faloo leer na ko moom si boppam lu mu mënoon jël si ndaw mënul jël ñëpp dañoo am défaite pour jël ndaw ñi si liggéey dañuy waxante dëgg dañoo échoué si l'emploi des jeunes même bu dee jël nañu nag moo tax ñu créé DER dem wut ay milliards pour investir financer les jeunes léegi benn sonko bii bu taxawee nga xam ne àllaaji Macky Sall la ko gën a jàng àllaaji Ablaye da ko gën a jàng ëpp ko xam-xam sut ko ci âge mag ko ñooñu ñëpp lu ñu dig ñu échoué moom daf ñu ko mën a dig mu nekk mënul nekk waxu politicien la jarul dóor sa doom mhm. puus ma ba oto ba tàq bu tàqee mu daw. d'accord ñu ñëw ci procès bi ak jour le 16 ak li nga xam ne moom moo jot a xew tribunal lépp euh, parce que gis nañu Adji Sarr anam bi nga xamante ni moom la ñëwee ci tribunal bi dinañ ñëw aussi ci écran plat bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ñenn ci sénégalais mu bett leen lool et aussi lan lañ fa euh, nar a teg ci boobule procès dugg si Adji Sarr noo ko jàngatee ak anam bi nga xam ne moom la duggee ci tribunal bi. waaw dugg seem Adji Sarr moom day war ne que elle est confiante a en tant que jigéen parce que jigéen bu fit bëriwul mm-hmm. day am am lu fit rek mais jigéen sa bopp xam nga ni fitam demul fu sori aji Sarr fii la toog ne Ousmane Sonko daf ko sàkku ñu bëri weddi ko ñii saaga ko ñii traité ko tous les noms d'oiseaux ñii attaqué ko sëriñ am yenn soi-disant sëriñ jóg ne di ñett fan dina génn àdduna yaa ngi fii déggoon nga ko ñii dégg ne Adji saar dina torox Adji Sarr toog fi mu toog rek aji saar bi ñu xamoon bi muy ne Ousmane Sonko def na ko def yu ñaaw di wax aji saar boobu la ñu gisaat ba léegi dara changé wul si diggante bi fu mu ŋoyoon foofu la ŋoy ba léegi aji saar bu doon ŋoyut si dara wala bu ñu jàppoon ne mbir mi complot la te mu xam ne jouru jugement ba c'est des juges des magistrats des ñu jàng buñ la xullee ci bët nga tiit kon aji saar day woo ñi ko sant mbir mi ne leen amatuma courage dem tiit na mm-hmm. mais lii da lay prouver ne kenn sant ko ko parce que ñun waxu Sonko rek lañ dégg. mu ñëw ne sénégalais lii complot la ku la comploté Macky Sall ku la comploté ministre de l'intérieur ku la comploté procureur nan lañ ko comploté est-ce que tey président Macky Sall moo ko yenu këram yóbbu Sweet Beauté est-ce que bu mu duggee Sweet Beauté dafa fekk ay militants APR yu ko dóor bulon ne tëddal ak Adji Sarr par force loolooy complot tey xam nga la laay jàpp complot mm-hmm. nga ne Kali ñëwal bërëb sàngam ñëwal seet si ma ma ñëw ba seet si fekk teg nga fa cinq gaillard ma ñëw rek ñu dool ma arrêté ne acca def ko li mu bëgg ma def loolooy complot mais moo fa yóbbu boppam yóbbuwaat fa boppam yóbbaat fa boppam ba muy ñeenti yoon mm-hmm. naka lañ ko mën a comploter léegi ñu tas ko si réseau yi complot le complot mais qui l'a comploté ak comment bëgg nañ ko xam mm. te opportunité bi waroon na ko may mu ñëw devant tous les sénégalais parce que il avait dit que il détient des preuves que lii du mës a am procès mm-hmm. moom yàqamti na procès am seetaan nga vidéo yi yaa ngi si dëkk bi mais bëgg nañu ñu ñëw jour procès Sonko taxaw aji taxaw mhm. avec ses treize avocats ñu àndil ñu les preuves qui montrent que lii c'était des complots. mais est li muy wax tey complot la dina neex a weddi aussi quand même parce que dañuy gis ñenn ñu nga xamante ni ci biir APR la bokk seen ay tur di ci dugg ku mel ni Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne audio yi nga xam ne wax nañu ne tey dafa fuité ñenn ñi sax jàpp ni euh, euh, audio yu ñu balancé la pour sénégalais jot ci ñu ciy dégg seen tur est que tamit xel du tey ci côté boobu. waaw audio yi lan nga si dégg yi est-ce que da ngaa Adji saar ne Mamour Diallo moo ko comploté audio yi déggoo ne Adji saar ne Mamour Diallo moo ma fay pour ma def liy jëf Ousmane Sonko déggoo ko déggoo audio bu Adji saar ne nguuru Macky Sall ñooma ne naa dem def dil Ousmane Sonko déggoo ko audio boobu lan ngay dégg seen soi-disant activistes yi nekk si réseaux sociaux yi mm. complot complot la complot la Mamour Diallo nekk si ginnaaw. mais nañu andi preuve bu wanee Mamour Diallo nekk si ginnaaw. mais Sidi Ahmed mbay mi nga xam ne teg nañ ko ci loxo moom itam bokk na ci li nga xamante ni dañ ko doon tuumaal ci mbir mi wax que ni moom ci complot yi la bokk quand te jamono ji teg nañ ko loxo. ban yaa ko teg loxo Sidi Ahmed Mbaye démb rek mu ngi woon ca tribunal ba wuyu ci convocation. yaa ko teg loxo mais tegoon nañ teg loxo. ak nga dem ñu def la garde à vue ça fait nga dem ñu def la garde à vue ñu bàyyi la du teg loxo teg loxo mooy nga ñëw ñu teg la loxo mooy ñu jàpp la. Mm-hmm. am na ku ma problème xaalis ñoom la dem na lijjanti nañ ko ñibbiwaat na mais Sidi Ahmed bay il était que témoin sur les faits. Mm-hmm. parce que dañ ko si tudd. ñu ñëw ne ko loo xam si luñ lay tudd. Mm-hmm. parce que Ndeye Khady Ndiaye suite boote moo ko tudd. ne ko am na ko tudd si Ahmed Mbaye moo fa ñëwoon patati patata. dañ koy woo ne dégg nañ sa tur si loo si xam moom mu joxe version bu Sonko ñëwoon démb tribunal Sidi Ahmed Mbaye devant tous les Sénégalais dina wax xalaatam bu dee complot la dina ne ah Mamour Diallo kay moom ma jox un million man nit ma gam gëji Adji Sarr mais c'est qu'on attend bëgg nañu xam mais lu tax loolu yëpp amuñu ko tey à cause de Sonko moo daw aji dawut jigéen bii di Ndeye jaay Ndiaye dawut mm-hmm. capitaine Touré ñëw na ñëpp ñëw Sonko lu tax ñëwut mm-hmm. kon y a Mhm. te wax nga ko léegi léegi que gisoon nañu ay vidéo projecteurs yi naroon taal. Mhm. donc lu gars yi ragaloon boobu ba léegi kon xel ñaaw na de. ah bon ah bah oui parce que tribunal yàgg nga fa dem soo gis ñu fay teg projecteur. lan moo ko waral mais lu ko waral parce que ñun ñëpp déggoon nañ ne Adji Sarr mu ne elle détient des vidéos. Mhm. ay preuve am. te tribunal boo gisee mu jékki-jékki ñëw andi loolu ñu nar a parce que dañ ci teg bët kon. parce que du ñëwoon xaar ba jours yi Adji Sarr jox leen kale devant tout le monde ñu teg fay Youssou Ndour ak Thione Seck mm-hmm. boo gisee ñu prévoir wut technicien ne bu ñu commencé ba trente minutes nga projeté parce que il l'ont déjà mm. mais xel jëriñul dara lu xalaat parce que du ñu xaar ba jours yi dina Adji Sarr ana li nga yor andi ñu teg ko mais mais mais mais mais Adji Sarr moo yàgg wax loolu def nañu live ma ak moom mu ne elle détient des vidéos kenn nag xamul moom moo xam ak yàlla parce que man bu ma nee yorul maa ngi wax lu ma neex bu ma nee attends bu ma nee yor na maa ngi wax lu ma neex mhm. parce que fekkewu ma ba muy def ak Sonko Sweet Beauté maa ngi Paris kon bu ma si waxee rek dama doon xumbal dama doon soobal bu kenn sukkandiku si lu Kaliphone wax parce que Khalifa nekk fa woon. mais lu tax duñ ci sukkandiku te waaw bokkul a wax ni bokkul bokkul non du question loolu man li may wax ñëpp xam nañ ne mosuma sos dara. d'accord ba may wax ne que Adji détient pas des preuves boobu mere naa ko xuloo ñëw na tey da am sa boroom kër mu jëndal la oto jëndal la kër jëndal la lépp ngeen xuloo nga ne ko doo góor te pourtant góor la sëy ngeen ba mu am ñett doom ñeent doom parce que xuloo moo ñëw am na la amut. waxin la woon déggin la laaj. Mm-hmm. parce que temps bi may wax ne que Adji fen la parce que j'étais en colère nekkoon en prison genn et puis lu fi jàmmoon am donc ma réagiré noonu mais gis ngeen ba ma waxtaanee ak sama njëganaay toog yàgg naa défendre aji ba tey ji damay continuer di ko défendre parce que jàpp naa ni moo nekk si dëgg te rusloowu ma ki ma rusloo mooy Sonko mii daw moo rusloo it waa Pastef parce que man dama am mbër bu tudd Adji Sarr ñoom ñu am mbër bu tudd sonk man sama mbër ñëw ñoom seen mbër ñëwut comme defet en attendant nii durant deux ans yi nga xamante ni euh, coow li am na am ñu ci ñàkk seen bakkan ak yi ni mel Adji Sarr wax ni yor na vidéo te dina ko balancer ak yi ni mel boobu ba tey gisuñu ko est-ce que gëm nga ni réellement su fekkoon ni Adji Sarr yor na ay vidéo Ousmane Sonko dina xaar ba jamono jii. waaw loolu yëpp Ousmane Sonko moo ñu si mënoon édifier. parce que comme Adji Sarr nee na yor na yow nga ne yorul. Mhm. man ma ne yorul samay junni morom ne yorul. Sonko waroon ñëw taxaw tribunal. Sonko si boppam ne ko Adji Sarr devant tous les Sénégalais adduna ngi seetaan ana vidéo yi nga doon wax ñu ñu déglu <laughs> bu ko andee ñu xam ne am na bu ko andiwut moom foofu moom mënatuñu wax vidéo am na parce que boob mooy dernière bi parce que ba ñu leen di yóbbu bureau doyen des juges dañoo ne woon foofu du woon pour wane vidéo c'était pour ñu déglu leen mais jour procès ngay andi say preuve te lu dëggu la jour procès ngay ñëw say vidéo Sonko warut daw vidéo am na wala amut moo ko waroon leeral mu jëm moom mi ne woon procès la bëgg lu muy daw si xale bu jigéen pour dëggal boppam yow góor dëggalal sa bopp journaliste nga say morom journaliste dinañ fa nekk ay nit yu am xam-xam ñu ngi fa nekk télé international yëpp a ngi fa bu ñu dégloo version Adji Sarr déglu version Sonko déglu avocat yi lu ñuy wax déglu témoin yi lu ñuy wax ah wax ju dofee nag nopp yu koy dégg war a wër yow boo déglu woon su buur boobu rek yow mën nga àtte mbir mi fekk mm-hmm. juge gars yi dañoo jël mbir mi wax ko ci réseaux sociaux yi ñëpp attaqué Adji saar mais nag ba ñu demee ba tey di ñii doon attaqué Adji Sarr ñu ngi jéggalu Adji saar hmm. parce que kat Adji Sarr luñ ko laajoon bu njëkk mu ne procès laa bëgg ñu ne Sonko loo bëggoon bu njëkk mu ne procès waaw procès jub na kan moo daw du Adji Sarr te pourtant moo waroon gën a jekk pour daw parce que moo ñu ne yor na ay vidéo bu doon yoru ko kon daw na moo ñu ne kii def ko sàqu bu doon amu si preuve kon daw na mënoon na victimiser wu hmm. jékki naan comprimé sax xaw feebar ñu évacuer yóbbu bitim réew wala jékki-jékki traumatise dof kon jugement bi doom pourtant defu ko dafa ñëw sañse ngéwal jaagar jaagar yi wane ne que mu ngi en forme. mais aussi dina tal loolu parce que ku nekk ah, xam na ni tey ku ñu violé quand même. dina dina traumatisé peut-être dina tal lu bëri leneen lu dul defaru ak jaagar jaagar mais gis nañu Adji Sarr saa saa su nekk buy ñëw tribunal dafa mel ni. Euh, xew lay dem. waaw mais bañ koy violé. ak léegi def na deux ans. lan nga bëgg bu newoon tribunal mu sol ay yére xotteeku lan nga leen xaar si moom day ñëw woon ne que tu l'as violée mais elle est toujours courageuse jigéen bu mu nekkoon moom la nekk ba tey parce que jigéen yàllaa ko bëgg yàlla ko suturaal dañ la violé rek war na tax nga bàyyeeku pour lan ngay bàyyeeku mm-hmm. wanal ne que gaynde nga jam nañ la mais deewoo daanuwoo bu ko defee yeneen jigéen yëpp dañuy ñëw roy mais lu ngeen doon xaar ku ñu violé ku ne waratoo génn nga war a dem sëngéemu traumatisé wu dof non da ngay wan ni que sëñ bi def nga ma loo xam ne da nga ma bëggoon toroxal ci kaw suuf mhm. def nga ma xam ne da bëggoon yàq sama àdduna mais heureusement yàllaa ngi fi tey laa gën a nekk aji bi ma nekkoon tey laay gën a wane que jéeg laa te wane na ko d'accord kon gëm nga ni tey bu ñu demaatee euh, ci mardi bi nga xamante ni ci la ñu dëgmal Adji Sarr dina indi preuve yu nga xam ne dina tax ñenn ci Sénégalais yi nga xam ne gëmuñu ne viol am na ak ay vidéo ak Euh, peut lépp loo xam ne jàpp na ni mën na ko cee may ndam dinañ ko gis si bis boobu. waaw déggoo li ma la mhm. man ak yow ak sénégalais yëpp ñoo bokk ñun dañuy seetaan fu mu ne nii Adji Sarr ak Sonko ñoo ñu mën a firi. Mhm. te Adji Sarr pare na pour firi ñu. Sonko parewul pour ñu firi ñu. wante dëgg nit nga yaa ngi ci dëkk bi. koo xam ne nee nañ leen tribunal ngeen jëm. lu nar am tribunal mooy ñu àtte leen lan lañ leen di àtte yow soxna si yaa ne woon kii dala sàkku yor nga ay preuve yi wane ne def na lu ju ñaaw parce que kat ba mu demee porter di plainte sukkandikuñu si ay waxam dañ ko ni soxna si dama luti preuve ñëw mu dem wuti ay preuve am ñëw parce que Sonko bu doon def la ne benn yoon la fa dem xëy na preuve du am parce que bu mu demee benn yoon xëy na def na lu muy def mu dem plainte ñu ne ko preuve fu mu koy wuti jee mais Sonko si waxam dégg nga ko mën a dem naa fa ñeent yoon waaw ku fa dem benn yoon dem fa ñaari yoon ku bëgg preuve kay boo ñëwee ñettali yoon bi mën na palam xaar defal la preuve mm. parce que yëpp waajal la di tey jii boo ma waxoon Kaliphone maa ngi ñëw sa kër première jour nga bett ma nga ñëw mën naa bañ a waajal mais bu ma xamee ne suba da ngay ñëw mën naa teg fale loo xamante ni mën nañ toog fi waxtaan wax lu ñuy wax fekk jël naa lépp ma am preuve donc yaa xayti ki waxoon am nay preuve am kooku dawut mm-hmm. ki waxoon nañ ko sàkku kooku victimiser wul kooku génnul sax si réseau yi di wax wax ju bëri seetlu nga aji bu génnee si réseau yi maa ko génne mu wax mm-hmm. même vidéo bu ko defee maa koy ne defal vidéo fecc mu jox ma ko ma partagé wala yeneen gars yi partagé mos nga gis aji def ay point de presse benn yoon la ko def mooy bu ñu defoon ak ay waa leeral yi ainsi de suite ndax du dañuy bañ muy def erreur ci communication du question erreur nit boo amee dëgg doo bëri wax ku amee dëgg du bëri wax waxkat foo ko fekk foo ne moytu ko nee nañu liggéeykat dëgg day liggéey mm-hmm. waxkat dëgg du wax du liggéeykat foo gisee waxkat moytul ayca <laughs> ñu avancé euh, fi nga xamante ni fa la ñuy bëgg a daanale peut-être euh, li nga xam ne jot nga koo dund ci ci bis boobu la 16 bi nga xamante ni moom la ñu génn ñu gis ay ndaw yu nga xamante ni dañu bëggoon taal euh, fi nga xamante ni peut-être sa sa diwaan la nga mel ni ku doon bañ loolu mu mel ni sax gis nañu ci quelque ci ay attaques yu nga xam ne naroon na naroon na dal sa kaw loolu lan nga ñu ci mën a wax waaw xam nga ñun ñëpp Sénégal lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee man bokk rawatina ci banlieue bi. ay soi-disant activistes ñoo toog ci réseaux sociaux yi di influencer ay ndaw du leen ne dem leen taal kër diw kër diw kër diw kër diw ñu posté ne dem leen attaqué kër Kaliphone ñu yónnee ma preuve yi ma gis ko seen réseaux sociaux seen activistes yi ñoo wax loolu lu Kaliphone def bañ koy attaqué man yor ma alalu réew mi du ma ministre du ma député du ma dara sama xalaat laay toog di joxe comme ñoom nu ñuy toogee di joxe seen xalaat pourtant gisuñu fu Kaliphone ne nañ démocratie lañ nekk nit ku ne libre nga nga wax lu nekk sa xel ci respect noonu lañ koy defee di defendre suñu mër loolu warul mën a tax ñu ne dem leen attaque kër Kaliphone mm. ah ba ma yegee ni ñu ngi bëgg a sama kër yor naa les moyens mënoon naa daw dem hôtel te di foofu parce que waruñ sama waa kër man la ñuy wër mais dama leen ko yombalal mënoon naa toog sama biir néeg bi làqatu tëj sama buntu kër kenn doom accès mais dama génn ci biti toog xaar leen foofu kon amoon nga information que ni dañuy ñëw. waaw bien sûr yónnee nañ ma image yi. d'accord nañ ma téléphone parce que si réseaux sociaux yi lañ ko def ma jël devant yi ba ma jëlee devant yi ma jékki-jékki di live pour wax ne parce que dañ demaat sax ba ne kali bii ñu waxoon ñu ngi koy wër euh, kii de attaqué kali daw na ma def live wane ne que ne daw ma maa ngi ni taxaw sama buntu kër. léegi ñu woo ñu ñuy woo ne dem leen kali nga buntu këram dañoo extrait commencé sànni ay xeer. bi ko commencé sànnee xeer comme sama frère a ngi ak ay jigéen ak samay sœur ñu xëcc ma ne ma dugal samay frère ñooma moom lu ma dëgër dëgër bopp wala lu ma am fit mhm. ñoom faw ma soor leen ñu xëcc ma ne ma dugal ba ma duggee ba ci biir it neexuma yéen a ngi dégg sax maa ngi naan ubbil bunt bi. Mhm. loolu la gars yi doon wax naan kali mi ngi daw. non ubbil bunt bi pour ñoom dama ne ubbil bunt bi ma dugg mais ubbil bunt bi boo seetaanee vidéo bi ba ma duggee ci biir. laa lañ korose bunt bi ma ne nañu ubbi bunt bi man ba ñuy sànni xeer maa ngi ci biti mhm. te bu doon ay nit dëgg lañu duñ taxaw ay deux cent mètres di sànni xeer nañu ñëw ba ci Kaliphone Kaliphone kii du yow kii du man face to face na doon benn nit wala ñaar mhm. mais de des vingtaines de personnes ci benn Kaliphone kon kay Kaliphone du tapet ñoom ñooy tapet ñu wante dëgg mhm. bañ defee noonu maa ngi ko doon def en direct am na ay images yu ma am te it koo si porter plainte du mucc parce que ñoom ñoo jóge seen kër ñëw sama kër di ma sànni te gis nañ fan yëpp ñu ko jot def yëpp jàpp nañ leen donc musiba la si ñoom tey it ba ma xoolee ba xool ay ndaw lañ dëkk si koñ bi. Mhm. boo leen jàpploowee tey seeni waajur ñooy déplacé wu ñëw fii di jooy sama doom bi sama doom bi après nooy def mhm. te yéen dëkk benn gox du ñu xool ne sa doom ñoo tooñ mais yow la ñuy xool ne que da nga soxor tëj lu nga seen doom sa fekk ñooñu mënoon la ñu ñëw fekk fii rey la mhm. lan laa leen def man lu ma sekk ak ñoom mooy rafetal ci biir dëkk bi kenn su ma xamee ñàkk fayda biir Dalifort fii laa juddoo yaroo màggee daayira bu fi xew la ma jël as lu ma am tuut jox leen footballeurs yi même chose mbër yi même chose association yi même chose duñ fi jóg lettre yi bu ma ubbi woon sama kamoot junni lettre ngay gis te du ma ministre du ma député du ma dara lu ma ay yàlla di sedd as tuut maa ngi koy partagé ak ñoom donc bu junni nit taxawoon feneen ne attaqué leen Kali ñoo waroon am xel ne Kali bii duñ ko attaqué sunu grand la. Mhm. deful luy tax ñu attaqué ko. d'accord d'accord mais bon mu ngi noonu heureusement lu ñu bëggoon daluma. attaqué ray leen ko sama kanam a ngi nii yaa ngi jàkkaarloo moom gisoo fu néewi. Mhm. sama kër gisoo fenn ba ngay dugg fu toj. donc nañu xam ne yàlla sunu borom moo may sàmm. te dina continuer di ma sàmm incha allah rabbi d'accord ñu tàggatoowee ak FDS yi li nga xamante ni gis nañu ko ñu def ko buntu kër Ousmane Sonko ci ci li ñu wax mm, wax ni dañoo dugg ci ambulance boo xamante ni jàpp nañ ni malaat la defoon peut-être ñu koy euh, jéem a yóbbu l'hôpital ngir daal di koy rawale mais dañu ñëw ba buntu kër Ousmane Sonko dóor fa ay grenade mel ni ku xambaat jeunes yi ñu tàggatoo foofu tey noo jàngatee euh, loolu nga xam ne peut-être def nañ ko ndax rafetlu nga ko. ah bañ rafetlu. ah stratégie boo mënti def pour disperser foule da koy def police kenn du la jàngal seen stratégie. mais jamono jooju manifestation yi jeexoon na. quand même attends dam la ni yoon dafa am ci dëkk bi. Mhm. Ousmane Sonko këram la moom mais moomul buntu këramam. ay centaine de jeunes ñëw siège si buntu kër gi buntu kër gi voie publique la. di def ay attroupement mais dañ koy aaye lu xew ngente xewut ceet ayewul dara xewut mhm. mais bu ñu defee foofu baare voiture bi bëgg a jàll du jàll. ñaata dëkkandoo la Sonko am si koñ bi gis nga moom rek moo dëkk foofu non dafa am ay dëkkandoo ñooñu am nañ seen oto bëgg ak si seen i kër ndaw yooyu dem baare deux cent mètres ñooñu nara a ñibbi wetu kër sonk fu ñuy jaar bu ñu bëggee xëy fu ñuy génn pour xëy munuñu ko donc ñooñu c'est des sénégalais foog ñu ñëw sécuriser ñooñu disperser foule bi bu ko defee ñooñu di mën di dem marché di xëy di wàcc dama koy rafetlu police lu mu def rek am na fu mu ko teg. mais gisoo ni loolu tey du tooñ. mais lu tax nga ne day tooñ. yéen daal xamu leen ko tooñ ko fay ngeen xam ndaw yi bàyyi seen kër bàyyi seen kër bàyyi dem mais ak ambulance bi nga xam ne utiliser nañ ko te ñu jàppoon nañ ni malade la def ndax gisoo ni mënoon nañoo jël seen moto yow lu sa yoon ci ambulance stratégie la yow ramasse day am car rapide la ñuy jëli mhm. mosoo gis ñu yékki-yékki andi car rapide su koñ rek ñu ne ramasse doo ko gis stratégie police la mosoo gis police bu yore euh, euh, café Touba di jaay def njaxasu bàyyi faalam toog si jaaykatu yàmbaay gars yi toog naan jaay ma waay jaay ma waay mu ngi composé naan ñëwleen ba gars yi toog rek nga jékki-jékki auto police gars yi jàpp ñëpp stratégie la parce que bu ñu seenoon auto police mu ngi ñëw dañuy toog di sànnante ak ñoom mais comme seen nañu ambulance la ñu ne bu kenn laal li ambulance la stratégie la <laughs> mais stratégie bu baax sax Ah, waaw waaw bañ rafet rafetlu. d'accord am na solo bu baax a baax kon jàpp nga ni loolu solution la. Ah, peut-être bien yow sa xam nga ni solution la lu rafet la. d'accord am na solo lu daggan sax. alors merci beaucoup Kali ñu ngi lay mm. sant bu baax di la jaajëfal mbégte la woon feggoog yow jotaay di la sant bu baax ci disponibilité bi euh, ñu sant la rek bàyyi la nga tàgg ñu la doon seetaan ci Dakar Live. waaw man maa gën a kontaan wax dëgg fa yàlla waa Dakar Live. Mm-hmm. xëy na yàgg ngeen woo nag ay weeri weer pour ñu def entretien. Mm-hmm. comme ni ko yeneen sites di defee. ma nekkoon nag si ay travaux xam nga si dara donc may jéggalu de boobu ba léegi bëggoon naa toog ak yéen parce que man du ma daw benn sit parce que gisuma lu may nëbbatu ki di daw donc vraiment gis naa ne ay ndaw ngeen te yaakaar naa ni tamit comme nu ko yenn journaliste yi bëgg Sénégal defee noonu koy ngeen di koy defee mm-hmm. parce que gis naa say question déglu naa la gisuma si yow par parlo mm-hmm. donc si loolu la ñuy xaar journaliste parce que tey dëkk bi dafa bëri ay nit jékki rek ne ay journaliste lañu fekk yaa ma neex la ñuy def taal leen xamb leen rey leen loolu du rôle journalisme moo tax démb yaa ngi dégg ñu naan jàpp nañu diw jàpp nañu diw journaliste ba muy jàng ji métier dafa ñëw pour joxe des informations vraies mhm. et temps réel comme ni ngeen koy waxee mais buñ jékki-jékki gis journaliste bu dugal ci page ay vidéo yoo xam ne ay fake la yu am ay Nigéria ñu ñëw naan Casamance a ngi tàng fekk liy Gana la xewee loolu du journalisme journalisme yoo xamante ni ñu ngi gis policier bu blessé muy commentaire naan ñaw baax na si ñoom ñaw est-ce que loolu la ñuy xaar si journaliste te pourtant yéen a koy dégg du dëgg du yoon. journaliste da ngay neutre boo waree far sax faral côté policier yi parce que ñooñu ñoo la fi nekkal yow boo gisee ay ndaw di sànni policier nga war a wax ndaw ñi bu leen sànni policier yi parce que policier yi ñoo leen di aar tey ndaw yi di sànni policier bu ñu gaañee policier ban victoire lañ ci am tey agresseur bu duggoon sa kër yow ndaw moom di sànni policier police ngay njëkk woo kon nañu delloo si xel yi nunu xam ne ce policier ak gendarme duñ ay ennemi te ñoo ñëpp si ay kër lañu ñu jóge duñu ay étranger naka la nit di jàkkaarloo police jël paaka jam ko naka la nit di jàkkaarloo police jël xeer jam ko police bu ñu ñëwee disperser foule bi la ñuy def te disperser foule bi dara andiw ko lu dul taal lacrymogène nañu disperser dem seen yoon mm-hmm. buñ taaloon lacrymogène benn ñu ne ah gars yi disperser nañ nañ dem kenn du xeex mais ñu dóor lacrymogène pour ngeen disperser wu ngeen dem wuti ji ay cocktail molotov ak ak yu kenn xamul pourtant police yi yor nañ ay balles réelles mm-hmm. mënoon nañ ko def mais defuñu ko lacrymogène lañ def yow nga wuti ji cocktail molotov def si essence def si lii kooku dóor mu de mm-hmm. et pourtant police yi yor nañ dee matériel yoo xam ne kooku dóor mu de mais du ñu njëkkee loolu lacrymogène mosul rey nit dañ koy tiire nga yi ko nga oho oho oh, nga déplacé wu pour nga quitter les lieux mais ñu demee ba di dóor ay cocktail molotov police yi nag boobaa mën nañ ñooy dóor ay balles réelles mm-hmm. loolu moo tax ngay gis ñu naan y des morts parce que policiers yi ñaanuñu yàlla di dem di tirer di rey seen ay nit mais nag boo ngeen jógtee nag ne da ngeen di rey policiers yi ñoom dañuy def légitime défense te duñu gis benn policier boo xam ne dañ ko jugé gis loolu nañ delloo si waat xel yi mhm. xam ne Sénégal sunu Sénégal la buñ ko taalee di taal ay bus dem di ko di yàq ay Sénélec loolu kañ lañ ko def est ce dañ ko def président Macky Sall tey boo taalee bus ku yëg si bus yi boo taalee Sénélec kan moo lay alimenté courant koñ nañu arrêté sant naa leen gërëm naa leen ak seen internet na solo ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëfal mbokk internetu Dakar Live TV ñu ngi leen di sant yéen ak yéen itam comme ça su nekk rek ni ngeen di toppee suñu ay programme yaakaar naa ni comme ni mu ko waxee rek toog bi moom bëggoon nañu yàggoon nañ koo bëgg waaye mu mel ne rek euh, tey la ko yàlla suñu borom dogal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci disponibilité bi di jaajëfal képp koo xam ne euh, saa su nekk rek yaa ngi bàyyi xel Dakar Live TV jox leen rendez-vous rek bu yàggul dara euh, ci beneen ndaje bu ñuy daje jaa ngeen <laughs> non